ملكني ما لم يقيه عني وقال لي بقاؤه بالمن كرامتي كتاب ومن انتفعني به إلى الجنان مصطفاني بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Sénégal mbokki Jolof mbokki Touba dëkk bii ñu toog nii mooy dëkku maam Maharam Mbàkke mi nga xam ne mii moo meññ maam borom Touba radiallahu taala anhu waaye meññaale it maam Alaaji Malick Si radiallahu taala anhu waaye meññaale itam maqaali jaxate kala kon mën nañu wax ne maanaam maam maaram kilifa diini ci réew mi yëpp ci moom lañu ñu ko ci moom lañu cosaano cosaanoo ko defee nag maam maaram Mbàkke fii ñi nga wax ne ni ngi fi feeñ ci ay xatam maanaam atom ay xësin ay xësin ci arab maanaam mooy junni ak téeméer ak fukk ak benn waaye boo ko toll tollalee ak atom tubaab bi muy 1692 mi ngi fi bàyyi ko itam atum yërsin yërsin yërsin maanaam muy 1000 yu teg 210 waaye soo ko toll ak atom tubaab bi muy 1789 waasa mi ngi dund 99. juroom ñent fukki at ak juróom-ñeent tolloog turu yalla yi amna nak juroom juróom-ñaari doom yu góor ak ñett doom yu jigéen moom ma fari mam ma ara Mbàkke Amadou Fari Mata mbacke Cerno Fari Mata Mbàkke ñooñu seen yaay ku ñu wax Fari Mata sak mo leen jur Fari Mata sak nga dëkk ci njur ci gi ci Jolof amal ku ñu wax Ibrahima mbacke ak soxna mbacke Asta ak soxna Mbacke ak soxna Asta Mbacke ñu ngi seen day mu tudd soxna Awa Ñang amna itam ku ñëw amul soxna Bousso ak say soxna Bousso ñoo ngi seen day mu ngi dëkk Mbuso bi ci Jolof amna ku ñu wax Mouhabdou soxna Bousso Mbacke koku ndey mu ngi tuddu mu ngi tuddu soxna Mbay dëkk mbayen Thiès di ci Jolof ba legi amit wor gu tedd gi nga xamne gi moy abi Abibulaay Balla Aysa nga xamne ne meñ ma mom ma ma ma ma ma ma borom Touba mi gor gu maggi mom de mi ngi tuddu soxna ay Kan mi ngi dëkk kanen Njuru amar ku ñu wax Amadou khadim Mbacke ndeyam mi ngi ñu doom yi nga xamne moy doom yi Mbacke so bëggé wax nak manam digënté gi ni mu bokké mam mam mam maam borom Touba mi ni mu bokké mam Aji malik ni ma jaxate kale da ngay wax mam mbacké mam Balla aïssa mam Mor Anta seli mam Mor maam borom Touba Xaadimu Rasuul waaw maam Maaram mbacké mam Balla aïssa mam Mor Anta seli mam borom Touba Xaadimu Rasuul ko moy genn wet gi nga mam maam Maaram mbacké Amadou Fari Mata mbacké moo jur ku ñuy wax Mati Mbacke Mati Mbacke moo jur maam Ousmane si maam Ousmane si moo jur Aji Malick si ba tey da wax ne maam Maram Mbacke moo meññ ku ñuy wax Thierno Fadi Mata Mbacke Thierno Fadi Mata Mbacke meññ ku ñuy wax Xëri Mbacke Xëri Mbacke meññ ku ñuy wax Ngañ Xëri Ñang kooku moom ñang sant kooku jur maam Safiyetu Ñang maam Safiyetu Ñang moom moo jur Aji Abdel Sis Dabakh Malick mii nga xam ne moo fi jógee barki démb maam Maram Mbacke mii itam moo jur ku ñuy wax Soxna Mbacke Awa Ñang moom lañu jox njàmme kuréel mu am ca xaali amar soxna Mbacke ak Ibra soxna Mbacke ak amadu Ngurel soxna Mbacke ak Absa soxna Mbacke Absa soxna moomu nag la jox ma kala mu jur xaali ma jaxata kala kon ñooñu noonu lañ bokkee maanaam ci maam Maara Mbacke kon mbokk yi ni ñuy seetaan danañu déglu téere bii Serigne Moussa Ka mi nga xamne mi ku ne xam na ko ci rew mi mom moko talif taalif ñu woye ko matlabul haajaati ñu ko soxla mo nañ ko sakku ji matlabul haajaati fi nes mi wo so jaati ci maanaam non seulement maanaam doomi serigne bi ak soxna mi ak wayna sax cemut gëm maam jara ah su ko dewe manam bi mu waxe bi 11 11 bi satan jiri mom mom mom mam musa Moussa dafna li mo di càllalaak serigne Touba dañu firi ko ci wolof li tàmbalee ci maam usmaan Mbakke ma nga xam ne moo njëkk nekk wolof moo dikk jolof moo jur ku ñuy wax maam Sayid Mbakke mu jur maam Mohamadul Kabir mu jur maam Balla mu jur maam Maharam moo mii ma lay wax nag maam Maharam mu njëkk moo bokkut ak maam Maharam mii maam Maharam moo mii ma lay wax nag moom ma yoro Mbak ma yoro mi ko jur wax nañu ne ak wattoom alxuraan ni ngi sababoo ci toog déglu kuy wàcc alxuraan ba mu àggalee rek mu daal di wattu alxuraan. Mhm. maam maaram nag moom la ñuy wax moomadul xayri lu mooy turam moomadul xayri lu tudd ku ñuy wax xaram ñang moo ko jur moo tax ñu naan bi mhm. jigéen la mhm. ñuy wax xaram ñang yaayam wax nañu ne mi ngi feeñ atum ay xasin ci mille six cent quatre-vingt-quinze waaw mi ngi fi bàyyi ko tam atum yërsin waaw maam maaram nag moom moo jur maam Balla Aysa mu meññ maam Mor Anta Sali mu jur meññ Seexul Xadiim mi nga xam ne mi tubaarkàlla moo waral màggal gi yéen